gërëm muy wootee ca bitim réew diaspora bi ñoom itam euh, ni mu ko waxee souvent la voie du changement si ñoom lay njëkk a jibee euh, effectivement seen résultat déjà moo njëkk ñëw mais aussi xam nañ ne dañu am lool influence ci njaboot gi ñu fi bàyyi en général ñoom euh, ñooy yor kër yi donc dañuy joxe parfois des consignes de vote très très aussi suivies dans la majorité des cas donc effectivement les résultats de la diaspora dafay maye une lecture euh, très, très euh, clair euh, ci yenn cas yi donc ba tey yéen a ngi ci édition spéciale bi ñu leen di toppal la euh, les résultats euh, les premières tendance surtout alors Espagne localité Cuevas del Almanzora am nañu fa résultat ñi fa voté 280 la ñu bureau numéro 1 ba Bassirou Diomaye fay moo fa gagné avec 258 voix Khalifa Ababacar Sall benn voix Pape Djibril Fall benn Amadou Ba am na fa 18 voix allo salaamaaleykum maaleykum salaam na def. sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaw ah, maa ngi lay Yankuba. noo tudd fooy wote. depuis Kër Massar. Kër Massar d'accord yow la ñuy déglu. Ah, Sénégal yëpp benn bopp la. Mhm. Bassirou Diomaye Faye Sénégalais la Amadou Ba yëpp Sénégalais la. Mhm. ñu voté ci jàmm ñu jóg résultat ci jàmm. Mhm. pour le gars yi mun a dem liggéey quoi. Sénégal yëpp benn bopp la quoi loolu laa mm. ñaan quoi. Mm-hmm. ok merci. jërëjëf sa ñaan bi am na solo ñëpp xëy ah. dem liggéey suba ñi war a jàngi jàngi réew mi nekk ci jàmm loolu la ñëpp bëgg loolu la ñëpp di ñaan. donc yàlla na lépp mujjee noonu 77 810 90 90 mën ngeen a euh, continuer réagir ci déjà les premières tendances mais aussi euh, li nga xam ne moom moo di euh, les premiers résultats di wéy di jóge ca diaspora ba Espagne Burgos votant 84 Diomaye Faye obtient 67 voix Aliou jaar Dia 8 voix Amadou Ba 8 voix Serigne Mboup une voix ñi ci des zéro la am loolu Espagne la jóge jógee Burgos précisément euh, ci kon euh, réewum Espagne alors dina ñu leen toppal yeneen résultat yi tàmbalee wàcc Paris aussi certainement seen résultat léegi tey mu daal di yemb salaamaaleykum allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ bi ñu ngi lay ziar. waa soxna si maa ngi lay ziar baax di la baalu àq man la Diallo. di la baalu àq baax Diallo waaw ñu ngi ñu ngi lay baalu àq yow tam di la baal àq. waaw bépp bépp mu am rek la koy baalu àq wér-wér di baalu àq. jërëjëf Sénégal yëpp koo xar ñaar. jërëjëf baal naa la yow itam nga baal ma àq bu baax. waaw baal naa la baal naa la. parce que parce que ñun noo bokk Sénégal c'est que euh, dafa nekk loo xam ne bu élection amee ku nekk da dem fa fa nga far. dëgg la waaye bu jeexee rek jeex na. dëgg bu jeexee rek jeex na effectivement. waaw kon ñu ngi ñaanal Sénégal yëpp daal yëpp yëpp képp xaw ma yaa sama kàddu yi nu daan yu xëccoo wala nu daan werante wala nu daan xuloo maa ngi lay baalu àq te di la baalu àq. Mm-hmm. di wax ne élection yi seen la yàlla muy moo la ne jàmm Sénégal la moo demee Sénégal am na démocratie. Mm. kon yow da nga def nga kon yow tiire nga déjà benn enseignement ci résultat yi ñu jot a am su la déggee. waaw tiire nga moo lay wax ne Amadou ah oui. maa wax li soxna si bindal. foo teg loolu. fu leer laa ko teg. Amadou Ba day gagné premier tour. premier tour lii kay bindal mba ba ne ngeen aaris ko téye ko. bind naa ko Amadou Ba premier tour. parce que maa la wax lii maa ko te yàgg naa ko wax nag. léegi yow résultat diaspora bi gis nga ko. non xam nga boo xoolee mosu ñoo ñoom ñoo dem fu nit ñi dem. parce que ñoo génn xamuñu Sénégal di doxee. <laughs> d'accord. soxna si. Hmm. soxna si la plupart des personnes Sénégal euh, yu nekk ci Europe. mosu ñu mosu ñu ñibbi xamuñ lan mooy Sénégal nan la Sénégal doon ñoom dañoo yóbbaaleel ma rek ñoom ñu gars yi ay Mola Morguet yi laaf laay ak yooyu. ñoo leen hmm. yóbbaale. Hmm. mais ñi nga xam ñi nga xam ñun ñi nga xam ne ngi dem Sénégal dem ak a ñëw. di def par six mois wala par huit mois gën ngaa bëri un an ñu xam ne lan la Sénégal joxe. te na la woon tey gis nga lii ma la bindal dix huit heures dix neuf heures Sénégal vingt heures Sénégal di nga gis résultat di nga gis ay yoo xam ni ay ay kii yoo da lii fan la parce que Sénégal li ñu bëgg mooy changement te Macky Sall changement Amadou Ba changement la pour Macky Sall pour mm-hmm. Amadou Ba. Mm-hmm. te te wax dëgg yàlla Amadou bu ñëwee day liggéey li mu war a liggéey def li mu war def mottali day mottali rek. Mm-hmm. dañ ko jox ay yoo xam ne ñëw di dugg sa p loolu sa yi loolu baaxul. Mm-hmm. yàlla na yàlla dolli Sénégal jàmm ñu xam ne ñun noo bokk suñu Sénégal kenn mënu koo xar ñaar mais ñen ñen rek Amadou Ba comme lii nga xam ne ñu yaakaar gi xam moom am ci ñëpp te Sénégal am ko si Amadou Ba mm-hmm. yàlla bu mu it mm-hmm. na na ñëw teg réew mi si yoon bu ko dee boo ñëpp liggéey ndool ñëpp booy ñoom Ousmane Sonko nga xam aayaguñu mu boo leen dugal leen ci parti bi gouvernement am ñu dem liggéey ñoom it pour ñu jàng nu mbapat loolu leen soxla ci moom moom it parce que Sénégal ñu ñoo ko bokk kenn mënu koo xar ñaar. dëgg la coow lee fi nekk rek mën nañoo yuuxoo mën nañoo xeex mën nañoo saagaat waaye bu jeexee rek jeex loolu dëgg la. ñun ñoo ko ku nekk moom da nga kii ëpp na. kii dafa réer ñaaw laamin fekk kenn ku ne yaa ngi xool sa leader avancé noo mën a daan ne leader jàmbur ngi wut. Mhm. d'accord jàmbur kon nag kon nag Sénégal yi na yi def éle euh, voté si jàmm. dem mhm. tey boo xoolee tey Sénégal yi ñu jógee voté Moustapha. Mhm. loolu war naa loolu war naa yee ñu bari tey boo demee niveau Touba boo demee lu mel ni tuubaa tey ne nit ñuy jugee góor gëj na fa am. Mm-hmm. nga dem Dakar noonu nga dem Fouta noonu nga dem yenn réew yi nga xam ne ko Sénégal yi soxla na changement parce dañoo gis ko xam ne dañoo gis leader bu yaru leader bu xam ne bu ñëwaatee Sénégal mm-hmm. day gën a gongu te sa gongu na pare maam mu day dooli gongu rek. Mm-hmm. waaw nu ngi rafet seen liggéey baax di xam ne yéen wax dëgg yàlla yéen télévision bi yàlla def ba nekk télé a a mag a mag vraiment gàcce ngaalam seen liggéey. amiin. ndax seen liggéey set na.

jërëjëf Diallo ñu ngi lay gërëm bu baax voilà donc sa premier tour bi aussi bind naa ko bu résultat yi génnee nga ñëw résultat globaux yi ñu ngi koy xaar 17 18 heures 28 donc euh, xam ngeen ne foofu Euh, ca bitim réew résultat yu bëree bëri wàcc na ni ñu ko waxee Amadou Ba moo nekkagum euh, ci ginnaaw Bassirou Diomaye Faye fii ci Sénégal nag bureau de vote yu bëri tëj nañu leen donc euh, ñu ngi xaar dépouillement yi mun nañu déjà tàmbali xool du côté de Kër Massar am na koy fëgg aussi mun nañu ko jël am na résultat yi ñu fi jot en attendant mun nañ ko joxe bureau 1 bu Montpellier Diomaye Faye moo jiitu avec 215 voix Amadou Ba topp ci avec 12 voix Idrissa Seck 9 voix Khalifa Aliou Mamadou Dia quatre voix Anta Babacar Ngom quatre le reste zéro la ñu am salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay nuyu noo tudd ak foo nuy woowee. man maa ngi lay maa ngi woowee Bargny Bargny. Bargny. waaw d'accord naka waa Bargny. waaw ñu ngi sant yàlla baax. foofu naka la élection bi demee. fii dégg nga diggante ni taama dee Pikine. donc xar yi kenn wutul kenn kenn kenn wutul bu ñu woon dañu ah, saa seen ah, fi ñu woon wote. ñu tey doo leen wote ay deuxième tour ak bu def yi génn ko hmm. kenn wotewul kenn kenn wotewul kenn ñu ñu lañu naan ñu ay deuxième tour ak ay ñu soxlawul deuxième tour premier tour ay soxla waaye suñu doon dañoo bëgg a wàññi waaye foofu yàlla premier tour faaw maam hmm. faaw maam xale yi kenn wotewul kenn kenn kenn wotewul laaw ñoo ngi fi ñuy sànni ay lacrymogène waaye baax na jërëjëf wax ko ñëpp na jàll kenn wotewul ku wax ne xale yi génnuñu génn nañu waaye kenn nga toog ñëpp a génn waaye kenn nga toog saa bu ñu xëy ñu naan xaw nañ génn nañ génn nañ génn nañ te buñ génnee nga xale yi kenn du wat ñooñu ba ñoo sonn ñoo sonn par ko jëf kàtt ni yàlla waaw. jërëjëf ni élection bi demee amul benn jafe-jafe. waaye Pikine ma nga ne kenn wute wu dañuy jàppante jëlee dëkk xale yëpp la aw do xale dañu ko gis ay xale euh, yi la ñu doo leen wote. Hmm, d'accord jërëjëf jërëjëf ci xibaar boobu bari ñi nee kenn wotewu fa daanaka loolu tamit nekk na lu doy waar lool. alors 77 810 90 90 mun ngeen continuer réagir ci kon euh, li nga xam ne moom moo di euh, élection bi mais aussi première tendance yi alors allô allô allô kooku rëcc na alors euh, village Nikin en Casamance ñu ne Bassirou Diomaye fay gañe na foofu Grand Médine fi Amadou Ba voté woon euh, mayaat nañu journaliste yi ñu duggaat ci centre de vote bi donc euh, mun nañu wax ne foofu la situation s'est rétablie allo salaamaaleykum. waaleykum sëñ bi noo tudd foo ñuy woowee. damay leb tur lebal nañ la ko mbaa di ko fay. waaw dinaa ko bismillah yow lañuy déglu. au euh, fait euh, dama dégg sànq nga ne Grand Médine. dañ génne comment dirais je yi. Mhm. mais journaliste tey liggéeyam lay def mu ñu ñu jël ñi nga xam ne ñoo war joxe l' information. Mhm. ñu leen di génne ci ay lieu de vote pour lan gis nga Sénégal dañ toll koo xam ne. nit ñi war dañ war a yeewu xam ne kii nii lépp lu nit di def nit ñi xam nañ ko. Hmm. dañ mën a xam rek bàcc biir mais ban njëriñ la am journaliste bi ñëw toog nga ne ko noonu lii du fi am mais seen liggéey la ñuy def pour lan ah loolu du yoon beneen bi. Euh, am na ko dugg sànq may dégg mu ne euh, l'autre la euh, Amadou Ba day gagné deuxième premier tour. jàlloo waaw. waaw day jàll premier tour. Mm-hmm. sama <laughs> mbokku pël boobu daal xam naa daa daa daa bon rek xam naa. déedéet <laughs> waay. waaye résultat yi ñu jot a au niveau du diaspora bi. kan moo ci kanam du du du jomaay. Mm-hmm. ñu bëgg a taxaw ne premier tour xanaa dañuy luxus léegi gis nga buñ naxante nañ waxante dëgg waxante li fi ne. Mm-hmm. waxante dëgg nag mënul weesu li li résultat teg ci taabal bi nit ñi ne lii la waaw. Mm-hmm. journal journaliste yi ñoo ko génnee ñoo ko teg ci table bi waaw. léegi nag élection yi kenn du ko sàcc que ça soit clair. Mhm. voilà loolu nag laa amoon li may wax. jërëjëf ba ci kanam. joomaay nag gañe na ba pare. Hmm. nañu gaay bindal. d'accord ma bind joomaay gañe na. gañe na pare. premier tour wala. loolu daa jaral laaj. <laughs> jërëjëf na ko. waaw lan moo ñu dese. Hmm. soxna si nag fu toll nii daal. waa beneen kaas yi nañ teel a reer. nañ teel reer de waaw tey moom bés bu rafet la tey moom. bu ñu kenn xejemal suñu bés. d'accord. voilà. jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay gërëm. Afrique du Sud euh, Pretoria am nañu seen résultat bureau 1 euh, Diomaye Faye moo fa jiitu avec 46 voix Amadou Ba moo ci topp avec 11 euh, euh, voix. donc résultat yi ba tey ñu ngi wéy di jóge ca bitim réew mais aussi ci Sénégal parce que Thiès R100 euh, ca bureau témoin ba nee nañu Bassirou Diomaye Faye gagné na fa le temps de voir les résultats salaamaaleykum. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay siyaar. noo tudd ak fooy woote. Euh, man Amara Mone laa tudd. Mhm. maa ngi wootee Cambérène. ñu ngi lay déglu. xam naa sant bi dina jaaxal bu bari waaye ci dëkk bi laa bokk. ci dëkk bi nga bokk macha allah. Euh, soxna si xam la mooy sama problème. Hmm. pourquoi privilège yi nga xam ne Amadou Ba moom la am ñeneen ñi amul ko. Hmm. parce que si campagne bi koy gis démb rek euh, romb naa siège bi di nekk côté gaz ba maa gis ñu ngi foofu noonu ay bus Dakar dem bi hmm. pour yóbbu ay nit ñi cest à euh, benn message bu ndaw la bëgg a jàllale bu mhm. fekkee sama xam-xam foofu la toll woon mhm. c'est-à-dire euh, problème bi mooy euh, ñun peut yàlla def na li ñuy xeex du pour Sonko du pour Diomaye du pour kenn mhm. cest à ñun aussi il faut yi xam ne ñu ne nañ xel dañuy xalaat comme fii ñëpp pour man ñëpp xam nañ ni Macky liggéey na defar na ay defar na terre def na lu bari mhm. mais est-ce que c'est ce qu'on besoin mais nañ mais mais dëkk bi yàqu na Sénégal bi bëri na si dëkk bi jeunesse ba ngi def lu ne parce que am temps liggéey ñu defuñu dara agression bu bari beeg dox beeg détail tout li gis yëpp si dëkk bi mhm. parce que jeunes yi dañoo am temps te état état loolu rôlam pour mu jàppale jeunes yu bëri ce euh, qui est sûr de mooy damay toog parfois di waxtaan ak ay nit yoo xam ne péage bi biñ ko mosee jël Pikine lañ mos a wàccee. Mm-hmm. suñ ko jël dem Thiès mosuñ ko jël dem fenn parce que parce que parce que amuñu amuñu xëy amuñu gontu amuñu benn activité bu ñu mën a def sax ba xam lu péage bi di sax. Mm-hmm. damay toog ak samay copains yoo xam ne mu suñu jël terre te pourtant c'est des Sénégalais non. Hmm? Mm-hmm. waaw man sa à dire loolu mooy problème bi il faut yàlla na yàlla def daal yi nga xam ne moom moo war a jël réew ci kanam incha allah. Hmm. yàlla na nekk ku ñu jiit mais benn message bu bëgg pour may ñeneen liñ mooy benn conscience bi ñu am mooy. Hmm. may Macky bu ñu ko may beneen ku fi toog su ñu ne ku toogoon wala Jomaay toog ku mënti doon neuf heures dix heures bu leer parce que am nañ xel am na lu ñu gëm moom mu convaincre ñu si loolu ñu ànd ak moom. mais ñun kenn mënuñu fooye jeunesse bi yeewu na tout le monde est conscient yàlla na jàmm am si dëkk bi yàlla na ñëpp am jàmm mais ce qui est sûr mooy ñi fi nekk nii pour l'instant ñoo dañ ñuy foowe parce que privilège yi ñu am kenn ñoom rek ñoo ko am ñoom kese men ni ñoom kese ñooy ay Sénégalais quoi waaw jégalu bu loolu la moom jërëjëf ñu ngi lay gërëm kàddu yi am na solo lool macha allah ñu ngi lay gërëm bu baax a baax alors ñu dem jëli résultat yi Mulhouse France bureau 1 et 2 moom la ñu compilé Bassirou Diomaye Faye moom moo fa jiitu également avec 195 voix Amadou Ba topp ci avec 112 voix Khalifa Sall obtient 4 voix Aliou Mamadou Diabo PUR 3 voix Idrissa Seck une voix Pape Djibril Fall une voix yeneen candidat yi zéro la ñu am foofu muy ca Mulhouse en France euh, bureau 1 ak 2 précisément Fès euh, Maroc bureau 2 Diomaye fay obtient 15 voix Amadou Ba une voix donc euh, loolu mooy résultat yi jotagum euh, wàcc fii muy ca Maroc ak ca en France Thiès bureau témoin bu ville ba kon Bassirou Diomaye fay gagné na ko effectivement avec 92 voix. Euh, 92 inscrits autant pour moi 52 ñoo voté Diomaye fay moo am 26 voix Amadou Ba douze voix Idrissa Seck sept voix kon euh, bureau témoin bu Thiès boobu Idrissa Seck euh, borom Thiès mujj na ko ñàkk euh, muy bureau témoin bu nekk ca ville bu Thiès kon Bassirou Diomaye Faye moom moo fa gañee am vingt six voix sur les cinquante deux qui ont voté Amadou am douze voix. Idrissa Seck topp ci am sept voix voilà donc résultat yi ñu ngi tàmbalee wàcc donc fii ci réew mi mun nañu dem Ziguinchor xooli ca centre Nema bu Ousmane Sonko euh, lan moo fa wàccagum comme résultat après aussi mun nañ dem kër